dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo li ram si ñag bi la jëm te bu fa amee kër du baax woppi coronavirus ci réewum Sénégal ak askan wi nii nga xam ne moom la ñu bàyyeekoo soo mooy tuule maanaam musiba ma bu kumba gu rëy dina xew ci réew mi te bu boobaa dina fekk béy way mbuus yéen kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan fukki fan ak benn ci weeru mee lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay nit ñoo amee woon doomu jàngoro ji ñu ne pig ba ma ngi noonu waaye ni ki li nga xam ne moom la ñu nemmeeku mooy woppi coronavirus ma ngi gën law ci réewum Sénégal ndax lu toll si ñaari téeméer ak juróom-ñaar ci ay nit ñoo amee doomu jàngoro ji am na lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom démb ñoo xam ne ay cas communautaire lañu maanaam xamuñu kan moo leen ko wàll yéen kaay gii di réew mi quotidien nee na woppi coronavirus jamono ji maanaam ma ngi gën a yaatu ci réew mi te nag li ko waral mooy bàyyeeku gi nga xam ne askanu Sénégal bàyyeeku nañ ko waaye nag Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur def na benn erreur boo xamante ni mën naa tax jàngoro ji gën a law ci réew mi ndax moom Aly Ngouille Ndiaye kero bi nga xam ne maanaam ma ngi janoo ak taskatu xabaar yi dafa wax ne ku mu neex mën ngaa nekk ci mbedd mi bañ a takk masque te kàddoom yooyu erreur la ndax bala ngay dem ci bërëbu liggéeyukaay ci mbedd mi ngay jaar kaay gi di Libération mu ñu xamalal ñu en tout cas li am ba des daal caaf mu ngi xëm ndax lu toll si ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñaar faatu nañ ci mbir mi ba mu commencé ba léegi ci réew Sénégal la yéenekaay xëy mel ni lu ko feelu ne lu toll si ñaari téeméer ak juróom ñaar cay nit amee nañu niki dëmb doomu jàngoro ji am na lu toll téeméer fukk ak juróom ci ay cas communautaire loole moo tax Sénégal jamono ji ma ngi ci son zone rouge maanaam musiba ma bu kumba gu rëy soo moytuwulee dina am ci réew mi maara day taali yéene kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy ay fajkat di faj wopp ji di coronavirus ci hôpital Dantec ñoom ñoo ngi ci ab grève li ko waral mooy seeni paiement indemnité la ñu leen fayul yéene gi di Sud Quotidien xëy waax ci sous région bi ak lu jëm ci ñetteelu mandat ak jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllum politique ci yenn ci ay réew nee na nag réewum Côte d'Ivoire fanweeri fan ak benn ci weeru octobre la ñu fas yéene amal seeni élection présidentielle waaye nag soo moytuwulee coow lu rëy dina am maanaam musiba mabba kumba instabilité politique bay boo ñu daal di ko fay xaar ndax ki nga xam ne mooy Alassane Dramane Ouattara keroog bi nga xam ne wax na ne dafay sampan na bëri na ay ndaw ñoo xam ne génnoon nañ ci mbedd mi daal di taal ay pëna waaye nag su dee fi xam ne mooy Guinée Conakry foofee keroog bi nga xam ne parti Alpha Condé daal nañu koy désigner ngir mu nekk seen candidat loole moo tax askan wi nga xam ne ñoo dëkk Guinée Conakry ñoom nag nee na ñu pare nañu ngir ñàkkante ko ak Alpha Condé ndax yàgg nañu ko ñàkkante ak moom ba ñu bëri daal di fay ñàkk seen bakkan yéen kaay gi nee na bu dee Mali moom foofee crise politique moo fa am loolee sax moo taxoon waa CEDEAO daal di fay dem waaye nag amul lenn loo xamante ni daat nañu ko fay lijjanti ndax ñi nga xam ne ñooy askan wa li ñuy sàkku mooy Ibrahima Boubacar Keïta tekki ndombal tànkam bu dee nag fii ci réewum Sénégal ki nga xam ne mooy Macky Sall moom dafay may nopp bu baax a baax li nga xam ne mooy mbedd mi yéen i kayi gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa waa aar li ñu bokk ak ñoo lànk ñoom nag nee nañu niki suba si àjjuma ji danañu amal seen doxum ñaxtu jugee université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jaar ci VDN bi ba rond-point OMVS escale siège Orange te nee nañu nag préfet bu Ndakaaru maanaam mu jox leen autorisation ak mu ñàkk leen koy jox la ñu yemale li nga xam ne moo leen naqari ba ñu bëgg a amal doxum ñaxtu bokk na si jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllum suuf te ñu koy tudd fenn fu nekk ci réew mi ak étudiants yi nga xamante ni takku nañ lool te kenn orienté wu leen yéen kaay gi di réew mi ko quotidien xëy ci coowul suuf li nga xam ne moo am ca dëkk bii di tobe nekk ci commune bu mbeewaan ak waa ICS maanaam industrie chimique du Sénégal ndax dafa am benn projet d'extension boo xam ne maanaam moom la ñu fay amal loole nag askan wa nee nañu du ñu nangu benn yoon seen suuf soosee lépp ñu daal di koy Akimo 24 heures mu ñu xamal naan lu toll si juróom ñett ci ay camion gendarmerie la ñu duy ba mu fees daal di koy sotti ni démb fi nga xam ne mooy toobeen maanaam jàppante bu métte métti am na fa ni ki démb yéen kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu am na lu toll si juróom ñaar ci ay nit yoo xam ne teg nañu leen loxo am na fa ñetti chef de village yoo xamante ni jàpp nañ leen yéen kaay gi de la turbine mu ñu xamal naan ñu coowul suuf ci Sénégal maanaam foo xool rek ma nga fa waaye nag loolee li muy yàq mooy dëkkandoo beek jàmm ji nga xam ne am na ko ci réew mi ndax Dakar bari jàttoo la Bambey Thiès Mbour foofe fépp am na ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum suuf yéen kaay gi di direct news moom nag li mu xëy nemmee ku nee na askan wi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal rawatina ndaw ñi maanaam ndaw ñi ñu ñi nga xam ne ñooy takk der yi bu njëkk askan wi bu ñu gisee ko sol tenue rek dañu lay moytu daat lay ragal loola léegi na gis nañ ne Sénégal ndaw ñi dañu ko ñàkkanteeg ñi nga xam na ñooy takk der yi gis nañu ko Médina gis nañu gis nañ ko Cap Skirring gis nañ ko Sicap Mbao gis nañ ko Mbour yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xamal lan ñu lu toll ci fanweer ak ñett ci ay gambien ak juróom benn ci ay sénégalais teg nañu leen loxo ñooñu nag dañu doon trafiquer li nga xam ne maanaam mooy drogue waaye nag drogue bu dëgër bi a kaay na waxtaan wu yaatu ak na ci yi nga xam ne daan na koy sumb nee na bu fekk juróom-ñetti téeméer ci ay junni million loolee muy ab budget daan nay wax école de commerce bi ngi koy taxawal ak makaan bu yees boo xamante ni 7800 mètres carré la la nga xam ne moo koy tabax ni ay koppar toll na si fanweer ak juróom-ñaar ci ay milliards wax na jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko ci lu jëm ci wàllum renouvellement yéen a kaay gii di sunu làmb xëy na ci mbër yu mag yi nga xam ne ñoo dëkk géejuwaay nee na mbër yu mag yi ñoom ñëpp maanaam am nañu combat waaye nag combat la yoo xam ne benn yombul ci ñoom muy Balla Gaye di Sa Thiès di Abdou Diouf di Gouye Gui yéen a kaay gi nee na écurie Bawol mbooloo ñoom duñu tus ndax lu toll juróomi combat la ñu am benn victoire quatre défaites yéen gi dee nee na niki démb Paris Saint-Germain dafa rëcc ci digganteem ak Atlanta ci lu jëm ci ci Ligue des champions nee na Paris Saint-Germain bi ñu demee ba si mujjantalu match bi maanaam si la gagné Atlanta ñaari bal ci benn dem na demi-finale ginnaaw ñaar fukki at ak juróom yoo xamante ni Paris Saint-Germain maanaam demul demi-finale